neex taxaw Ama Baldé Modou la boppam. moo publicité boppam waaw moo publicité promoteur bi. waaw ah, gàcce ngalaama gox mooy léegi promoteur des grands événements. gaawul yëngatu mais bu yëngatoo rek dañuy Sénégal yi bëgg leen di joxal. combat bi am na favori. non mënu am favori. lamb amatul favori. amatul favori. lamb favori lamb. sañ-sañ la ak gëm sa bopp. rek def la nga war a def. mais lamb amul favori. merci beaucoup maa ngi lay ziar. waaw dama ñëw seetaan si làmb ji rek làmb Abou Diassé bi ak Tapha Gueye làmb rek a tax nga ñëw seetaan kese wala fi dafa am leen lu mu xew daa am rig bi Papis seen combat taxaw dafa mel na ngeen yàkkam ci woon combat bi aussi non ñun moo am dara lu ñu yàkkam di ñu doon yàkkam doon xam nga kon dem nañ ci leneen parce que boobu la ñu toog di xaar rek yàlla moo dogal ñu soog a sotti alhamdulilah yàlla bisimilah rahmaan rahim génn ci alhamdulilah rabbil alamin yàlla mooy ci ndam ngeen jël koo xamante ne mën nañoo wax ni moo mën ci euh, ci ci booy yi moromam yëpp la daan presque ba dugg ci VIP yi daan tafaatim ngeen jël ko. daanaan la moroom jël ko bëreeg moom di ñaan yàlla may ñu ci ndam rek. mais coow la coow combat coow dëgg ngeen am. Modou ku bëreeg moom combat coow lay doon loolu ci Modou la yàlla na yàlla na yàlla yàlla may ndam daal. Ama Baldé ñëpp xam nañ ko ba arbitre bi sifflé da leen di loolu day neex kon dañuy daje. rek ku nekk teel a ñibbi yéen ngeen mën a teel a doxi seen soxla. amoon na loolu di sor ci Ama. déedéet. mu nekk combat boo xamante ne waa parcelle yëpp a soxla ngeen bëre woon mbapat ngeen daanoon ko. waaw ah, mais loolu moom passé na xam nga fi mu toll nii moom xam nga dañuy focus si lii nii nekk suñu kanam la ñu ñaan yàlla mën si bi nekk date bu sori aussi juillet. waaw suñu sañoon mu gën a jege peut-être xam naa nekkul bi moo tax mu demee noonu. mais jour bu mënta doon daal yàlla na nekk suñu jour yàlla na doon. yaa ngi ku daax ku daax xeex. laaj naa la ko yow. Amady Modou Lo ku daax xeex. laajaat naa la ko. ku daax bëre. laajaat naa la ko. jaajëf. yow yaa tudd combat VIP yi benn ci combat VIP yi taxaw Modou Lo Ama Baldé. day day daal noo gisee. waaw ñaari génération yoo xamante ni. ci génération 2009 la di Ama Baldé ci génération 2000. six deux mille cinq mu nekk génération yoo xamante ni ku ci nekk dafa am foo yóbbu làmb ndax Ama bi muy ñëw fii la ñu ko bëre moo ko Ousseyn Ndiaye premier combat fii la mu daan ko jëli bu rëy ki nga xam ne mooy Modou Lo mu ngi njëkk ki nga xamante ni mooy xale boobu ñuy wax euh, bi nekk bool nekk écrit bool ñoo ko baat seen numéro 2. marqué empreinte ci làmb moom Modou Lo kon tey suñu demee ba boole ko kii xar mooy Ama Baldé nekk combat boo xamante ni du ñoom ñaar ñoo bëggante askan wi ñoo ko soxla lamb dafa toll foo xamante ni diggante Ama Baldé ak Modou Lo su taxawul làmb du dox. favori favori ko mën a wax ndax tey Modou Lo fu mu toll ci làmb nekk roi des arènes tey da nga naan mbër mi gën a kawe ci làmb mooy Modou Lo. te xale yi gën a prouvé a Baldé la. dégg nga ne xale bi gën a Ama la. Ama la. mbër bi gën a kawe ci làmb Modou Lo la. Modou ndax moo yor roi des arènes. liñ ñu ko laay toj na réew kon liñ ko laay dañ koy félicité di ko encouragé li mu bëgg ci làmb ji yàlla defal ko ko jërëjëf. Mbaa Mbaa sa doomu ndey dafa jël lu diis moo tax. lu diis Ama xale bu ndaw di jël diis Ama sax muy jël lu diis. xaw ndaw mais Soro yow lan moo tax yow yow yow yow yow yow yow noo def nga nga nga banaliser affaire yi Ama Baldé bëri le roi des arènes. lan mooy roi des arènes. Modou Lo. lu roi des arènes lan mooy roi des arènes. daan roi des arènes tu es roi des arènes. roi des kolo kolo yow nga daan janvier ñëw juillet nga nekk roi des arènes. waaw mais dafa bëri dafa bëri deux fois moo tax. bëri deux fois loolu roi des kolo kolo la. saa sa doomu ne am na komba de. caw sa xiir. yéen kon fu mu toll nii yéen da gëm ne da ngeen di daan Modou Lo yéen mais ama ah, bu ko gëmul woon di xale bu ndaw nekk ci laamu di bëre bu ko gëmul woon dina dina jël avance lu tax ngay jël avance mbër te ñeme ko daan ñeme boo ko bëgg da daan nga bàyyi dem tëdd tëdd nelaw mais Soro est-ce que loolu mu nekk sa copain moo tax ngay wax loolu non mais yow gis na ay qualité ama gis na mbër yi fi daan ku fi daan ay tafatin daan fi ay Malick Niang ah ñeneen ak ñeneen et cetera kon xam ngeen kooku Modou du ko jaaxal. amoo ne loolu di calculer ci Modou Lo yéen. ah ma amul lu la moom mooy ut ci Modou bu mu taxaw xaar xale bi ñëw lamb na rek. mais am ngeen combat de combat bi dana yëngal dana yëngal lamb. loolu moom combat bi moom sax mooy ëpp tension sax ka Balla Gaye ma Lo man ma gis ndax ama mu dogali ñëw Modou Lo dogali ñëw non loolu àdduna bu dugg la. <laughs> alors lan ngay wax euh, lim Nicolas mi ko tëgg. waaw xam nga lim Nicolas te lu lim def def na lu lu parce que amateur ñoo namoon lamb bu mag booba tey mag am fi mu ñëw tëgg ko ñu ngi koy félicité di ko encouragé mu ñëw defal ñu ay spectacle yu neex parce que namoon lamb bu mag daal waaw. Albourakh production fu mu toll. waaw ñu ngi waaj ñu ngi waaj incha am naa léegi rek ñu wàcc terrain bi. di ngeen wàcc waaw bëgg nañ ko de incha allah. incha allah yaa sóor na mon frère. maa ngi ziar. Modou Lo Ama Baldé taxaw na. waaw combat la. c'est waaw. ñoom ñaar nan nga gisee euh, combat bi. combat bu bëri enjeu ndax Eumeu dafa daanu boo ñaar dafa daanu te Ama nee ni ko ni ko roi des bi leeree su ko dee woon su ko ajanaam leeree woon noonu mu dem ajana loolu la wax kon te Modou du ñeexu ñebe mbër mu mag la te bul fàtte ni moom mooy roi des arènes la te ama lu nekk ci kanam moom rek ne moom moo ko moom ama la kon combat la boo xam ne du du yàgg ku xeef doo gis jël. nga ne lan du yàgg. waaw du yàgg ku xeef doo gis jël. Ah, ama Baldé. Ama day ñëw Modou Lo day contre. combat bu jaar la. mu ne. maa ngi jël maa ngi waa mais fils maa ngi leen di ziar. Modou Modou Lo Modou Lo Ama Baldé taxaw. waaw mais avant tout ma nuyu leen ba pare di wax ne namoon naa leen di leen ñaanal jàmm saay su ne rek di la wax ne combat bu neex décroché wu na kon ahlu làmb dañ cee war a sant yàlla wax ne combat la boo xam ne ñaari mbër yu diggu doomu lañ te combat boobu bu ñu bëree mu neex bu ñu bàkkoo mu neex ah. lu leer laa lay wax ni. kuy favori déggoo li ma la wax combat boobu mbàccum kaani la. non instant yii nii cinquante cinquante laa leen di jox parce que balaa ma lay wax kan moo ciy favori seen face seen première face à face bu ñu dajee dinaa la wax ku ciy favori mais daal loo ci mën a dégg ñaar lañ ñoo xamante ni dañoo soxlante woon te fu mu toll nii làmb ubbeeku na parce que sama doomu ndey maam les daan na ko wax naan grand contre petit il mu am ma ne ko loolu lu jaadu la. waaye dafa nekk loo xam ne mag ñi ñooy teggi xale yi mais léegi nag Modou Lo ubbi na bunt yi Balla Gaye dafa war a jëli Boy Niang ah, ah. billaay wallaay parce que combat Ama Baldé bii ngay gis nii ak Modou Lo non combat boobu yàlla na ñu fekk ak suñu bakkan ñu fekkee ko di nga gis combat boo mos a gis àdduna combat bu neex taxaw diggante Modou Lo ak i nga xam te mooy Ama Baldé noo ko gisee waaw làmb la nag xam nga loolu dafa baax te grand contributeur da ci am solo parce que day am fu mu yegg parce que booy seet cinq ans yi jàll am na am ñu bàyyi am na mag ñu tam am na rak am na xale tam yu yéeg loolu day permettre tey jii nii ñi nga xam ñoo nekk si kaw ku mel ni Modou Lo Balla Gaye yeneen yeneen war a jël seen i rak bëri ak ñoom pour fi mu ne actuellement fi mu jug fi. combat bi am na favori. non est ce que am na favori est ce que du 50 50. waaw yaakaar naa ko. baat si si kaw Modou Lo. ah dina neex ne mënu ma wax alors combat bu neex taxaw diggante Modou Lo Ama Baldé noo gisee. oh extraordinaire. waaw loolu lañ doon ñaan yàlla mu taxaw. yàlla def na mu taxaw. waaw yàlla nañ ci yàlla yóbboo ak jàmm. que le meilleur gagne def na affaire. non def na affaire def na affaire. def waaw il a def na lépp daal. def na lépp Nicolas gàcce laa ma. parce que ñu tax ñi ñu taxawoon doon wax. combat baa lii la la la moom mu ñëw tëgg ko amal ci moyen boppam. mais ñu ngi koy ñaanal yàlla sunu borom defal ko jàmm. xam nga lu la waaw leneen liy ñëw dàq ci moom quoi. am na favori combat bi. non amul favori. amul favori amul loo Modou Lo dafa daanoon Ama Baldé yaa ngi dégg Ama day ñëwaat daa bëgg a nekk roi des daa bëgg a fayu te Modou loo li mu bëgg li mu yor buk koo joxe. moo tax combat bu am enjeu lay doon. combat bu am danger lay doon xam nga mais ni ñuy ñaanal yàlla ñaari mbër yëpp dara bañ leen a jot. que le meilleur gagne. combat bu neex taxaw Ama Baldé Modou Lo. waaw combat la ñaar ndéem la. lamb ju neex la. ñaar ndéem la waaw lamb ñëpp doon amul favori pour man. amul favori non non. sama gis dañuy tase wala. loolu laa gis na ama ama du xaar. day ñëw day ñëw yëpp dañuy daje. <laughs> jaajëf jaajëf. ñoo ngi ci saako yi ñoom ñaar. chute am na daan na ko jël bu rëy na chute bi na.